الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñi ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala ci mu wërsëgal ñu ñu daje ci ab néegam fas yéene fàttaliku la nga xam ne ay wax la yum jaarale woon ci bi yonentam sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo ñu waxoon ni wa ma aataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yonent bi indil jël leen lum leen tere bàyyi leen ñu doon sukkandikoo ci téere bii di bulughul maram bu alxaafiz ibnu xajar rahimahullah yegsi woon ci li ñuy tuddee kitaabul xuduud ba war a jël tey la nga la nga xam ne mooy ñetteelu bunt bi ñu muy baabu xaddu sariqa ñu jotoon cee jël lu tolloog juróomi xadis war a ñëw tey ci juróom benneelu xadis bi wa an rafi ibnu xadijin radiallahu anhu baabu xaddi sariqa yàlla dogal na ñi ngi doon séentu weeru tabaski ñu koy wax zulhijja réew mi nga xam ne mooy Arabie saoudite ñoom ñu ne gis nañu ko biig ci guddi muy wane ne kon sunu dimanche tey ji mooy bis bu jëkk ci weeru tabaski jaamu yàlla yu mag yi ñuy séentu benn bi mooy yowmu arafa mi ngi nekk kon altine suba ji bu dellusee lay bisu tabaski ba mooy nekk ca ëllëg sa di talaata jàpp naa ni ñu ëpp ci ñun dégg nañ xutba yu jiitu woon ca mooy fukki fan yi mooy fukki fan yi gën ci at mi lu way man lu way xam ci jaamu yàlla mu bañ caa xeeb dara ca xam ni la nga cay def ci fan yi moo gënal yàlla leneen loo ko defal yeneen fan yu dul loolu kon incha allah ñu jël suñu bind bu jëkk ci baabu xadd sariqa muy tombeek juróom benneelu xadis bi ci bunt boobu xadis yi nga xam ne moom la ñuy jëkkee wa an rafi ibn xadijin radiyallahu anhu jële niñ ci waa jooju yal na yàlla wàcce ngërëmam ci moom qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul man day maa dégg yonente yàlla ba naan laa qataa fi samar kenn du dagg ca la nga xam ne mooy meññeent ma nit ki jël wala kasar wala la nga xamee ni nii mooy lu mel ne dakkaande lay doon yuñ daan génnee ci dattu tàndarma yi benn liquide buñ daan jëfandikoo comme ni ñuy jëfandikoo dakkaande yi ñuy jëlee ci yenn garab yi rawaahu mi ngi noonu rawaahu almazkurun wa saxaxahu aydan tirmisi wa ibn xibbaan mbokku xadis bi day wone ne ci dem ca àll ba ca garab ga daggal boppam meññeent daa di koy lekk loole duñ ca dagg loxo su dee it dafa gàjji tàndarma ya génne ca loo xam ne day nekkook dakkaande loole kenn du ca dagg doonte ne xadis bi daan jàng ca kanam xadis bu koy gën a leeral di ko gën a détaillé bu dee xadis bi ci tege an abi umayya almaxzumiya almaxzumi waajoo di day dafa nettali ne qaala utiya nabiya sallallahu alayhi wa sallam bi listin qad ictarafa ictirafan yonent bi alayhi salaam indi nañ ko ab sàcc boo xam ne dafa reconnaître nangu ak nangu ne dafa sàcc walam yuujat maahu mataa doonte ne fekkuñu mu ànd ak moom benn bagage fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi alayhi salaam ne ko maa ixaaluka saraqata man da yow ma jortu jortu ma ne yow mii da ngaa sàcc qaala bala mu ne ahakay yu mi yàlla yéen dama sàcc fa aada alayhi marratayn aw thalatha yonent bi répété ko deux ou trois fois ñaar wala ñetti yoon fa amara bihi fa qutia yonent bi daal di joxe ndigal ñu dagg loxoom fa jia bihi gannaaw ba ñu indi ko fa qaala istaghfirillah wa tub ilayhi yonent bi ne ko jéggulul yàlla tuub dellu ci moom fa qaala astaghfirullah wa atubu ilayhi mu ne maa ngi jéggulu yàlla di tuub di dellu ci moom fa qaala allahuma tub alayhi salaasa yonent bi ni yàlla yàlla na nga ko nangul ak tuubam ñetti yoon mi ngi noonu bokk gis nañu jamono bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dund la yàlla wàcce woon ay luwaam doonte ni luwa yooyu gis nañu ne doomu aadama ak ni ko yàlla binde bu yàlla dogalee ci yow nga jalgati fokk nga jalgati benn waaye ngi nii am na lu ñu mës a sàcc loole kenn gisu ko moom moo ko sàcc mu deme deme dem ba mujj xelam yedd ko mu ñëw ca ña nga xam ne ñoom la sàccoon ne leen ay liggéeyeen liñ fi sàccoon keroog man mi maa ko sàcc donte ne kenn jàpp ko ak bagage bu mu sàcc gaa yi jàpp ñëw ci yonent bi alei salatu wasalaam ah kii kat lañ ñu sàccoon ne na moo ko sàcc rasul sallallahu alayhi wasallam ne waa ji ah yow mii day jortu mën a yow ab sàcc nga pour bëgg koo décourager mu dellu gannaaw ba ñu témoigner ci kawam waaye waa ji mu ne déedéet yow mi yàlla yónni ah kay man kay dama sàcc ah loolu bi mu amee rasul sallallahu alayhi wasallam ni nañ ko yóbbu ñu dagg loxoom ñu yóbbu ko dagg loxoom bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko tuubal dellu ci yàlla nga jéggulu sa boroom mu ne maa ngi jéggulu yàlla di tuub di dellu ci moom ay di jéggulu ko li ma jot a def tuub naa ne dootuma ci dellu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa dina yàlla yàlla na ko jéggal wax ko ñetti yoon loolee lañ ciy déggee mooy kooku ngëm gu nekkoon ci moom doonte ne seytaane mën na ko ba mu def loo xam ne ëllëg mi ngi wëlbati ko di ko rëccu yàlla na yàlla musal ñi ci pexe seytaan loolu day dal doomu aadama bi doonte ne ni moom gis nañu ne kenn poussé ko pour mu ñëw waaye ngëmam moo ko yóbbu pour mu jàpp ne xelam munta dal sàcc na ki sàcc dañoo war a dagg loxoom il faut mu ñëw indi loi bu yàlla bi ñu teg ko ci moom mu lay won mbokk ngëm ni muy soppee nit ñi da ngay gis ñu intellectuel yoo xam ni Muhammad la tudd xëy na sax mi ngi jullee ko woor mais bu ñu waxee wàllu ay loi dagg loxo wala yooyu da ngay gis day daal di mer daal di wane ni loolu moom da ko contre waaye mbokk lay waral loolu mooy kooku daa gëmul boroomam subhanahu wa taala bokk na ci itamit ne doomu aadama bi nga xam ne ni moom dafa gëm la koy dal ca yàlla tax ñu koy teg loolu day woyof ci moom jàngoon nañ ca gannaaw benn góor muy Maïs ibn Malik benn jigéen muy alxamidiya ñoom dañoo ñëw joxe seen bakkan ngir sàkku ngërëmal yàlla ndax def nañ ak njaaloo ñu waroon leen rey ci loolu waa ji it ku ne xam ne loxo lu neex la waaye comme moom def na ne loo xam ne ni lii daal yeyoo na ah ñu dagg sab loxo mu ñu ne dem ñu dagg loxo loole mbokk mi ngi nekk ci société boo xam ni ñu nga fay dagg loxo yal na yàlla dolli yërmande suñu benn mag di Cheikh Souleymane Gueye dafa am benn conférence waaw kon waaw kon maa ngi doon wax sunu mag boobu di Cheikh Souleymane Gueye benn conférence bu mu doon def di wax danger sàcc ak la koy yàlla di xaare ci bu dee tuubul loolu am benn waay daal di jóg daal di yooxu daal di ne ma man nu may def àllaaxira ak mbaamum bàyyi diw ba ma sàccoon jaay ko ca bàyyi diw dee na nan lay def ak mbaamam yowmal xiyaama mbokk loolee lu doy waar la ndax yéen ñëpp xam ngeen ne loo ab sàcc ci àdduna mooy buñ ko jàppee dagg loxoom mais lan mooy atteem ci àllaaxira yonent bi alayhi salaam ma say wax ak sahaaba yi kenn ci yéen bu mu dajeeg man yowmal qiyaama yenu aw nag naan ma yaa muhammad yaa rasulullah yaa rasulullah bu kenn dajeeg man ci yowmal qiyaama yenu suuf wala yenu nangam ndax suñu borom nee na wa man yaxlul yati ma xalla yowmal qiyaama lépp loo xam ne sàcc nga ko da nga koy yenu indi ko yowmal qiyaama loolu nag moo taxoon ndeysaan ma yuuxu yuuxu yooyee donte ni ne mbokk ñàkk atte wolluwab yàlla du responsabilité sàcc si kese responsabilité société bi yëpp la ñëpp ci am bakkaar di président de la république au balayeur bu nekk Fuuta ñëpp ci am bakkaar amma ki nga xam ne mooy ci def jëye ji moom bu loi amoon loi boobu dana ko protéger àdduna protéger ko àllaaxira tey jii demal Sandaga demal Kolobaan demal Caaroy buñ ñëwee sàccee luñ cay teg mooy na dee de am déet na dee ana ñaata sàcc lañu rey nettali naa leen fii ci ay tafsir ay mbokk yu ma nettali benn sàcc buñ doon dóor ba dem ba koy waaj a rey benn waay dem fëgg chef de quartier bi da ko kat boo yeexee daañ rey waa ji de bi chef de quartier bi ñëwee na ko waaw yow yow da ngay sàcc xanaa doo jurit mu ne ko jurit laa kay mu ne ko xam nga lu yàlla wax ci sàcc mu ne waa def na ko sàcc nañ dagg loxoom yooyu nañ dagg sama loxo ca bàyyi ma yaa ngi dégg kon nga xam ne des fois même dagg loxo googu day protéger sàcc bi ndax bu dul looloo gars yi dañ lay rey moo tax léegi sàcc buñ ko dàqee moom mooy dawal boppam ba dugg biir gendarmerie wala biir police loolee kon mbokk ñu xam ne responsabilité bu grave la amma nag waa ji nga xam ne dafa nangu dogali yàlla jalla wa ala loolee tuyaaba ju rëy la koy jural yowmal qiyaama ca la yonent bi alayhi salaam ñaanal ko ngir yàlla jéggal ko ñaanal yërëm ko xadis boobu wa axrajahu alxaakim min xadisi abi hurayra xaakim solo na ko daa di ne en yonente bi alayhi salaam fa saaqahu bi maana ay indi na xadis bi ci maanaam ay lu mel ne moom wa qaala fiihi idhabu bihi faqta'uuhu summa xsimu summa xsimuuhu ñu ne yonente bi alayhi salaam dane nañ ko dagg loxoom gannaaw ba ñu wowal loxo bi ay arrêté deret bi xsimuuhu ca mbokk xam ngeen médecine yàlla yombal nañu ak yombal tey hémorragie pexe yu bari médecins yi am nañ pour arrêter ko mais bu jëkk luñ daan arrêter deret di wal buñ ma sànn jàpp sàcc ba dagg loxoom dañuy tàngal ak diw ba muy bax buñ daggee loxo bi jël loxo bi sóob ko ci diw gi mu lakk ko noonu mu koy lakkee day tëj si di ko defee dana lakk mu metti nangam waaye nag deret di dootu kuule loolu moo ko dar sauvé ndax bu dul loolu bu daggee loxo bi day kuule ba ba dee loolu kon la rasul sallallahu alayhi wasallam wax loolu amaa boo demoon tey ci dëkk yi appliqué dagg loxo am na yeneen pexe yoo xam ni daañ ko def ba du aaje loolu ñuy lakk googu ñuy lakk xadis bi ñu mujj a jàng waan abdirahman ibnu awf radiallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقم عليه الحد mu ne yonent bi alayhi salaam nee na dootul nekk di gàddu pour war a fay képp koo xam ne dañoo teg ci moom loi bu dee daa sàcc waaye mbokk xadis bi borom xam-xam yi ñu ne munkar la ay dulu islam di di nangu ay ci gàttal rek mooy xadis bi wérul ndax ki sàcc ñaari nit la tooñ subhanallah ki sàcc ñaar la tooñ tooñ ne nit ki mu sàcc tooñ boroomam dagg bi ñuy dagg loxoom loolu àqu yàlla la amma bagage yim sàcc nit ki loolu àqu nit ki la buñ daggee loxoom ak ñàkk a dagg loxoom dafa war a delloo nit ki àq ba mu sàcc donc bu wóoree ne yow mi yaa sàcc portable waa ji ñu jàpp la yóbbu la ci loi fekk jaay nga portable wala sànq nga ko dañuy dagg sa loxo ba pare gannaaw ba nag ne la fokk nga delloo portable bi nga bi nga sàccoon loolu kon mooy la nga xam ne atteb lislaam la ci wàllu googee mi ngi noonu ci xadis yooyu ñu jot a jël
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجه غير متخذ مبنه فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامه والعقوبه ومن خرج بشيء منه بعد أن يقويه الجريم فبلغ ثمن
mbokk bu dee xadis yi ñu jàng wan abdillah ibnu amrin ibnu al-as radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annahu su'ila an at-tamri al-mu'allaq yonent bi laaj nañ ko tàndarma joo xam ne ma nga aju ca garabam ga fa qaala man asaaba bi fiihi min zi xaajatin mu ne képp koo xam ne dafa caa jot lu mu dugal ci gémmiñam ci koo xam ne daa am aajo xayra muttaxisin xubuna lu àndul ak jël loo xam ne da koy bokk yóbbaale fala shay'a alayhi ku mel noonu day dara du ko war ca loolee wa man xaraja bi cheyin minhu fa alayhi algaramatu wal uquba koo xam ne nag daa génne dara ca tool ba ku mel noonu day dana nekk luy gàllu ci moom lu mu war a fay muy garama wal uquba ak punition bu ñu war a teg ci kawam wa man xaraja bi cheyin minhu képp ku ci génn dara nag baada an yuwihil baada an yuwihul jariin jariinu gannaaw ba nga xamee ni nii fat na ko place ba ñuy denc tàndarma ya yóbbu nañ ko ba dé dugal ko ci dépôt yi ñuy denc tàndarma ya fa balaga samanan mijjan mu daal di sàcc loo xam ne mënees na ca jënd la nga xam ne moom la waaji xeex di yor ngir fittee bañ koo dal ñu koy tudde bouclier fa alayhi alqatu ku mel noonu day dañoo war a dagg loxoom mi ngi noonu mbokk kon xadis mu njëkk a jàng bokk na lu koy détaillé rasul sallallahu alayhi wasallam dañuy ñëw laaj ko na ko waaw ki dem ci toolub jàmbur daal di jël ca meññeent ma luy atteem rasul sallallahu alayhi wasallam jox leen ñetti atte benn atte bi mu ne bu dee waa ji de daa aajowoo doon aji koo xam ne ku xiif la wala kuy romb ci yoon la wala ci nangam wala ci nangam daa di dagg lekk kese yóbbuwul dara ku mel nii moom dara waru ko su dee daal daa lekk kese dem lu mel noonu dara waru ko ca loolu it ñu xam ni yow borom tool gerte la am lu mu mën a doon képp ko romb sa tool jël ca lekk loolee ci sarax yu màgg yi la bokk picc bu ca lekk loolu ci sarax yu màgg yi la bokk looloo tax baykat war a rafetal yéeneem tuyaabaam lu yaatu la kon ku mel noonu amul lenn loo xam ne lu koy topp la ñu ngi noonu doonte ne ni danañu fàttali benn imam bu mag boo xam ne nii mooy Abu Hanifa bi ngeen xam ñu tudde ko muy Nu'man ibnu Bashir bokk na lu ñuy nettali ci cosaanam papaam mi ngi tuddoon Bachir Bachir ibnu Nu'man ñu ne daf doon tukki romb ci benn jardin benn garabu pom mu daal di gis pom bi rafet lool mu dagg ko lekk bi mu ko lekkee ba pare mu ne waaw man ma romb toolub jàmbur dagg nii pom lekk te joxuma ci ndigal daal di laajte ku moom tool bi ñu wax ko ko mu dem ci góor gi ko góor gi de dëgg dëgg dama bëggoon nga baal ma ndax daal dama romb sa tool bi gis sa benn pom alors mbiri caamin jàpp moom ma dagg ca pom lekk ko dama bëggoon nga baal ma baal ma ak góor gi ne ko ah duma la mën a baale noonu de loolu daal duma la mën a baale noonu léegi daal yow moom lenn dong dong dong mooy tax ma baal la dama fee am doom bu jigéen léegi nag gisuma ku ko takk soo ko mënee takk daal ma baal la soo ko mënta takk nag nga foo xam nga jëm fa mu ne ko mais teg maa baal rek mu ne ko déedéet man daal fokk nga kii ko mu ne ko ah waa ana doom bi ndoom bi nu mel mu ne ko ah doom bi da leen laa ci xam xam naa ne daal moom moom du du du dégg du gis ca du dox mu ne ko ah ku dul dégg du gis du dox kooku ni muy nar a demee mu ne ko ah noonu daal moo moo tax kenn takku ko di dama bëgg nga nga nga kii ko bi loolu amee ñu ne Bachir ibn Nu'man daa ji ne waaw yàlla soxna su dul dégg du gis du dox kii fu muy jëlee jëkkër daa dina koy fas ci yàlla ne danaa ko takk jaamoo ci yàlla. da nga noonu loo xamee ni nii tey lu bari ci nit yi tey defuñu ko commencé par imam Sarr waaye nag jaamu yàlla gu réy ngi noonu de gis jigéen boo xam ne dafa sonn nga takk ko ci yàlla tax alors góor gi ñu ne may ko ko bi mu ko ko mayee mu daal di kay boole woo soxna si bi soxna si ñëwee Bachir musul gis xale bu jigéen bu rafete noonu mu gis ko mi nga wax mi ngi dox mu ne ko waaw yow day sa papa dane moo woon yow dangaa doonoon koo xam ne doo gis doo wax te doo dox mu ne ko waaw loolu dala doon léebu rek ndax man bi ma juddoo mu yar ma ci lislaam fii la nekk ci kër gi di ma jàngal gannaaw amul benn góor bu ma mës a taxaw wax ak moom jiitu la yow mi sama tànk bi musuma koo yëkkati di dox fenn fu dul loo xam ne ci jaamu yàlla la jëm loolu rek la lay wax ñu ne ci diggante boobu ca la Abu Hanifa soso Bachir ibn Noman boobu moo jur Abu Hanifa muy Noman ibn Bachir ñi nga xam ne ñooy borom mazhab yi xam nañ ne ñeent ñi ci gën a siiw mooy Abu Hanifa imaamu Malik Shafii ibnu Hanbal Abu Hanifa moo leen jiitu mi ngi jóge ci yaay ju baax jooju ak maam ju baax jooju ak baay bu baax boobu te cosaan ba la boole papaam ak yaayam mooy lu mel ne hadis bi mooy en tant que ndaw jullit doo mën a tollub jaambur jël ci lu dul aqam dem suñu borom wane ci it ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib muy wañu ne kon état yi bokkoon nañu suñ bëggoon a wàññi agression bi du yokk policier ak gendarme yi waaye moo doon yar ndaw ñi delloo leen ci ragal yàlla ñu ragaloon yàlla rek yépp jeex kon rasul sallallahu alayhi wasallam nee na ki ñëw moom dagg rek lekk kooku amul bakkaar bu dee dafa aajowoo ñaareel bi mooy waa ji nga xam ni dafa ñëw moom lekk ba pare daal di ëmb nag yóbbaale mu ne ko mel nii moom daan dana delloo àqu la mu ëmboon ca it am na loi bu ñu mën a teg ci kawam attekat bi am na droit benn ne ko yow ko jëloon nga fa kilo tàndarma ñaari kilo tàndarma ngay dellu wala mu xool la méngoog moom ci ay yar mu duma ko ko ndax waa ji bayib toolam sonn ci yow nga dem nekku fa nga witti ca tool ba jël yóbbu sa kër loolu moom ak tooñ la mu ne nag su dee ne waa ji moom daa witti toolam ba pare ba dem nag dépôt ko fa mu koy déposé nga fekk ko foofee nag sàcc ca su boobaa la ngay sàcc bu matee ñetti dinaar te jàngoon nañ ko sànq ñetti ñetti dirham te jàngoon nañ ko sànq te ñetti dirham mooy rubu o dinaar mooy suñu xoolee lam sàcc ca tàndarma ja ca pom ja ca ñebbe ja ca gerte ga buñ ko xoolee mu méngoo lu jar ñu dagg loxoom ca mooy rubu o dinaar ku mel noonu dañuy dagg loxoom loolu kon mooy ñetti atte yu yeneen ci bàyyi sallallahu alayhi wasallam atte ci ki nga xam ne day sàcc wala bokk mu jël aq jaambur ci loo xam ne du ndigalam amma bu dee xadis bi ci tegee wa an safwan ibnu umayya radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal لما أمر بقتل الذي سرق رداءه فشفأ فيه صفوان ابن أمية ابن أمية day ba yonent bi déglee ñu dagg loxo ka sàccoon mbubbam ma mu ñëw di ñaan intervention ngir yonent bi bañ a dagg mbubb mi mu ne ko hala kaana zalika qabla an ta'tiyani bihi yenent bi ne ko waaw analu teewoon nga baaloon ko avant nga ma koy indil axrajahu ahmad wala arbaa wa saxahahu ibnu ljarad wal xaakim mbokk safwan ibnu umayya bi bokkoon na ci sahaaba yu mag yi dafa dem tëdd di nelaw daa di ngegandoo mbubbam ca lu ci bëri arab yi nañ daan solo bu njëkk mooy ni nit ñi armale al izar mooy li ñuy waddoo rida mooy mbubb bi ñuy sol ci di ko teg ci kaw bi mu ngéegandoo mbubb mi benn waay ñëw sàcc mbubb mi dem ak moom safwaan di ko wër di ko wër ba la ko tiib jàpp ko bi mu ko jàppee yóbbu ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kii de daa sàcc sama mbubb mi booba mbubbu lu cher la ca ngalawaay yéen waa Dakar wala yéen waa adduna bi yëpp ay waay sant leen yàlla xoolal mbubbu tey amul kenn ci ñun kuñ mën a bett na ko ñaata mbubb nga am mu wax ko amul kenn ci ñun ñi kenn xamul ñaata mbubb nga am waaye suñ maam yi mbokk julit da nga daan gis koo xam ne benn mbubb rek lay am am na koo xam ne nii ay sagar lay sol su masaan di bëgg a dem fenn day yónnee ab mbubb loolee kon bi bi ñu xoolee mbubb mi valeur am ëpp na la nga xamee ni nii ci la ñu war a dagg loxo yonent bi alayhi salaam ne ah yóbbu leen ko ñu dagg loxoom safaan na ko diit yow yàlla yu ne baal naa ko yaa ngi dégg ah baal naa ko yonent bi ne ko waaw lu teewoon nga baal ko avant nga ma koy indil loolu kon mbokk ñu dégg ci ni ñi nga xam ne dañoo jàpp seenub sàcc su leen neexee ñoo baal ko bañ koo yóbbu ci attekat bi su boobaa moom ñoom seen àq bale nañ ko mu des nag àqu yàlla ci waa ji su waa ji tuubee tuub bu sell it yàlla mën na ko baal su tuubul it moom bakkaar ba nga ànd ak moom amma buñ ko xisee ba indi ci attekat bi kenn amatul droit di ñaan pour léegi ñu bañ a teg atte bi ci loxoom foog naa ñi fekke woon ba ñuy jàng dimanche passé jigéen bu tedd boobee bokkoon ci Banu Maxzum ba mu sàccee ca ay mbokkam yu ni Usaama ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir yee ndax amuñu luñ mën a joxe ci ay giléem ak yu kenn xamul pour ñu bañ a daga loxoom Yonent bi alayhi salaam dafa mer ne lii mooy alagoon gaa yu jëkk ya ala kulli xaal mbokk atte bu yeggee ci attekat il faut mu jëfee ndi ko pen bi ammaa nag yow boo jàppee sab sàcc wala nga gis dëkkandoo bu jàppoon ab sàcc am nga droit dem ci moom na ko ay diw baal ko bañ koo yóbbu ci attekat bi ammaa lu ñëw ci attekat bi dañuy teg ci moom loi yu mel ni tey jii mbooloo mu fekkoon ay nit ñuy njaaloo bu leen neexee ñu suturaal leen seen diggante ak seen boroom mu des ci ñoom ammaa bu dee dañoo dem ci attekat bi ba seede seede yoo xam ne mat nañu ñeenti seede wala bu doon jëkkëram moo ñëw seede ca jabar ji indiwul luy tegg seede boobe yooyu yépp da ngay gis ne dañuy teg ci ñoom loi lii kon mooy la nga xamee ni nii mooy différencier ci mbir moomu amma bu dee xadis bi nga xam ne nii moom mooy ci mujjoon mooy xadisu jabir radiallahu anhu qaal jia bi saariqin ila nabi salallahu alayhi wa sallam dañoo ñëw ci benn sàcc bu ñu indil yonent bi salallahu alayhi wa sallam fa qaalu qutuluhu yonent bi salallahu alayhi wa sallam ni rey leen ko fa qaalu innahu saraqa ya rasulallah ñu ne ah déedéet moom dafa sàcc yow mi yàlla yónni qaala qtuuhu mu ne kon dem leen ngeen dagg loxo bi fa qutia ñu daal di koy dagg summa jia bihi thaniya ñu indiwaat ko ñaareelu yoon fa qaala fa qaala qtuluuhu yeneen bi ne dem leen ngeen rey ko fa zakara mislahu ñu waxaat ko lu mel noonu ca mooy daa sàcc suma jia bihi thalitha ñu indil ko ñetteel ba fa zakara mislahu mu wax lu mel noonu ca may rey leen ko suma jia bihi rabia ñu daal di koy indil ñeenteel ba kazalika naka noonu suma jia bihi alxamisa gannaaw ba ñu indil ko ca juróomi yoon ba fa qaala qutuluhu yonent bi alayhi salaam ne dem leen ngeen rey ko axrajahu abu daawud wa nasaa'i wa stankarahu wa axrajahu min xadis alxaaris ibn xaatib nahwa am na xadis buñ génnee ci keneen sahaaba jële ko wa zakara shafii an alqatla fi lxaamisa mansuux imaamu shafii mu ne rey gi ci juróomeel ba dañ koo mansuuxal ala kulli xaal mbokk xadis bi borom xam-xam yi dañ koo boole ci xadis yi wérul doonte ne la muy wax jàpp naa ni lu jafee mën a nekk la lu dul ne sharia noonu la ko tëralee parce que moom dañu dafa sàcc mu ñëw ñu dagg loxo ndeyjoor dagg loxo ta- tànku càmmooñ daggaat loxo càmmooñ daggaat tànku ndeyjoor mu ñàkk ñaari loxoom ñàkk ñaari tànkam ba pare dem di sàccat encore yeneen tubaab sam ne nañ ko rey mais doonte ne xadis bi wérul lu dul ne lenn rek moom mën nga ko caa déggee ki sàcc dañuy dagg loxoom mais loxo ndeyjooram la ñuy dagg am na benn borom xam-xam Abdullah Alxawlaani dafay waaraate ci Iraq waaraate bi bi mu waaree ba pare fekk yàlla da koo nattu loxo càmmooñam dafa dagg léegi benn ci kaw kaw yu jóg na ko imaam daal sa waaraate bi neex na lool waaye daal li ma jaaxal daal sa loxo bi moom lu ko dagg yaa ngi dégg après wi moom mu ne ah yàlla wax na dëgg suñ borom nee na al arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an laa yaalamu xududa ma anzala allah ala rasuli mu ne arab yi ñoo gën a tar kéeféer gën a tar nafiq ñoo gën a yey ngir bañ a xam loi te mooy bu xamoon alquran dana xam ne yàlla nee na ñu dagg loxo sàcc waaye ki sàcc loxo ndeyjooram la ñuy jëkk a dagg am déet kon war naa xam ne loxo càmmoñ bi la ko dagg du ak càcc ko dagg gis ngeen loolu muy benn kon ki sàcc ci lislaam waliyaasu billah dañuy dagg loxo ndeyjooram fuñ koy dagg mooy ci place bi montre bi di tege ci kaw fi poignée bi yem juste su demee sàccaat beneen yoon su boobaa tànku càmmooñam la ñuy dagg te suufu ko seen ba la ñuy dagg su demee sàcc ñetteelu yoon su boobaa ñu doog a dagg loxo càmmooñ bi su yàlla dogalee mu sàcc ñeenteelu yoon ñu dagg la nga xam ne mooy tànku ndeyjoor ba doonte ne ni yàlla moo xam ay jaamam mooy moom ay luwaam am na ñoo xam ne yàlla da leen ne nattu ñu bon rek am déet bu dee ñun sunu jamono yi sa wala fi da ngay dégg ñu naan diw dañ koo yàq ay munta bàyyi sàcc wala dañ koo yàq munta bàyyi naan mbokk loolu moom suñuy mbir la waaye daal luwaay yàlla yi yàlla tëral moom mooy mooy loolu donte li ne mbokk jullit lañu waxoon ci njëlbeenu dars ba la ñuy waxaat ba tey lii ñi ngi koy jàng dañ koo war a jàng pour gëm ko ne ci yàlla la jóge te lii it mooy war yow ndawal jullit nga reconnaître ko nangu ko xam ne weddi lii wala critique lii ak kéeféer la léegi nag jëfewuñ ko suñu réew dañooy war a ñaan yàlla yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu dund bay appliquer ay luwaam te xam nañ ne naataangim réew mi ngi jóge ci nangul yàlla tey jii bokk na ci réew yi gën a naat ci kaw suuf muy Arabie saoudite et pourtant day kuñ fa jàpp nga sàcc dañuy dagg sa loxo loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax bokk na it lu ñuy wax lañu xam ne mbokk dagg loxo boobu loi rek moo ko mën mooy buurub jullit boo xam ne nii moo tëral ay loi mais benn quartier amuñu droit jàpp ab sàcc naan dañuy dagg loxoom loolu kenn amu ci droit bokk na ci itamit ñu xam ne loi yooyee nekkul lu automatique du sàcc bu ne la ñu war a dagg loxoom waaye sàcc bu nekk cas spécial la boo xam ne attekat bi mooy xool lu tax mu sàcc ba da ngay gis jamono Omar ibnul Xattaab teggi woon na loi sàcc yu ndaw ndawaan yépp ca la ñuy tuddee amul ma jaa mooy atum xiif ma ndax nit ñi amuñu dara xiif nañu ñu bari ñi ngi doon dem di sàcc di dugg ci li wolof yi di wax naan du jukko jamono la ay année boobu Omar teggi woon loi boobee donc sàcckat bi daañu xool ndax moom teqalikowul ak sagoom lan moo ko poussé alalu kan la sàcc su dee ne ñoom lënkalool masalan jëkkër bu sàcc alalu jabaram kenn du dagg loxoom jabar sàcc alalu jëkkëram kenn du dagg loxoom bal dañ ne sax bu dee ne ñoo xam ne dafa yeyoo woon mu dépense ci moom ñaari frères yi ngi nii kii amul dara kii am waroon ko jàppale dimbali ko mu lànk bañ koo jàppale bu dee lëm jël ci alalam dafa tolloog lam ko waroon a dimbalee lu mel noonu kenn du dagg loxoom almuhim lii ab xam-xam la boo xam ni nii magistrat yi di demee enam di jàng ba xam droit doog a ñëw di atte naka noo nit loi sharia noonu la tëddee firiwul na rek ne noo sàccee rek dañuy dagg sa loxo fokk ñu xam yan lu tax nga def ko li nga sàcc naka la toll ak ay mbir yu bari suñ ko gëstoo ba mu daje nag ñu doog a xool ndax dañuy dagg sa loxo wala duñu dagg sa loxo yal nañu yàlla subhanahu wa taala musal ci ak sàcc yal na yàlla subhanahu wa taala musal ci suñu njaboot yal na yàlla wërsëgal lu dagan lu teey luy dox suñu digganteeg ñuy wuti lenn lu léwul wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain képp ko majeurul ba pare sàcc loolee kenn du dagg loxoom dañuy fexe delloolam sàcc su dee sànq na ko ay kilifaam lañuy wax ñu fexe delloolam sàcc léegi nag waa ji atte mooy xool ndax mën na ko duma walla loo xam ne dana tax du dellu ci sàcc googe waaye dagg loxoom moom duñ ko def koo xam ne majeuragul wallahu subhanahu wa taala alam non ala kulli xaal bismillah naam waaw denc waaw denc loolu ci maaruf lay nekk mooy lu société bi jàpp ne kii day denc na loolee dañ koy tudde ab denc masalan tey ki demoon ñag ab ñagam daa di góob gerteem dugal ci biir ñag bi kii xam nañ ne denc na donte ne yow foo toll yaa ngi gis gerte gi mais loolu denc na mi ngi mel ne tey jii waa ji ñu sàcc mbubbam moom mi ngi nelaw lem mbubbam gegandoo ko kooku ab denc la ca mooy lépp lu ñuy tudde ab denc ci ci maaruf dañ koy tudde denc ba nga xamee ni nii bokk na sax ci li borom xam-xam yi di wax kii jëloon moom sabaarub xaalisam tëdd di nelaw teg ko ci wetu boppam dañ naan kii dencul am maa nag lañ xam maaruf ci wàllu yëre yooyu ñu daan géggandoo kooku dañ naan denc la ala kulli xaal attikat bi mooy xool li ñu xam ci société bi ne lii day ab denc la ku jël alalam yóbbu ko ci ab denc ku ñëw jël ko sàcc ko loolee dara dañ koy tuddee ab sàcc bokkul ak nag koo xam ne daa jël lu nit ki dencul bokk na lu ñu mujjoon a jàng dimanche bi waa ji nga toogal nii moom mu sàggan ba nga ñëw rocci nii ab portable am loolee am na yeneen loi yu ñu teg ci yow mais du ñu dagg loxoom am maa nag bu ko dencoon nga wëlbati ko war ñëw rocci ko fa mu ko denc loolee la ñuy tuddee ab sàcc wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah
léegi nag bu bu doon def foofu pendant xamul ñaata moo des mais booy bi mu ko def nanguwul wax ni lii laa fi def mais nag mun a waaj a ne à peu près bi quoi.
waaw loolu moom ay problème mu atte la waa ji dafa ñëw ab kondaam leem la am xamul ñaata ci nekk benn waay ñëw sàcc kondaane bi yóbbu alors biñ ko jàppee moom it nangul wax ñaata la ci fekk loolu moom mbiru atte la ala kulli xaal su waa ji moom dogoo ci ne la nekkoon ci sama condamné ba day ëpp na rubu u dinaar moom xamul ñaata la waaye wóor na ko ni tey buñ demoon laaj tëgg bi gramme or lu muy jar mu ne masalan quinze mille moom wóor na ko ne moom la nekk ca condamné ba ëpp na quinze mille su boobaa waa waaju ji dañuy dagg loxoom am maa nag bu dee wóoru ko ndax mat ne quinze mille la matul quinze mille su boobaa kenn du dagg loxoom ci waa ci wàllu googee mi ngi noonu wallahu ah ah léegi wàllu famille la leen par exemple léegi moom bu ñu wax ni booy bi mu ne pour ñu may leen quoi moom mu ngi defoon léegi ndax bu ñu jàppale day wax ni lii laa jàpp.
waaw boo ko defee wàllu famille la quoi.
ala kulli xaal am na xaalis bu ñu ko sàcc.
ala kulli xaal loolu ma la jëkk a tontu maa ngi la tontoo ci sharia amma bu dee ci Sénégal lay tontoo loolu moom beneen affaire la ñun dunduñu sharia léegi moom la nga xam ne moom la man rek mooy à peu près ne lii la war a doon su bëggee fayoo ko waaj moom xamul lan la mais daal mën naa à peu près ne lu mu bon bon yéesul nangam te doon loolu cent mille la deux cent mille la ça dépend na xool la nga xam ne moom digganteem ak yàlla wóor na ko ni li ma fi denc moom yéesul nangam su boobaa mu wax waa ji fay ko loolu mi ngi noonu wallahu aalam naam naam loolu moom bokkoon na ci liñ mujj a jàng mooy képp koo xam ne nii dafa sàcc ñaari aq moo gàllu ci kawam suñu ko jàppee yóbbu ci attekat bi aq yàlla moo ñu dagg loxoom ka nga xam ne moom la sàcc aqam moo ñu delloo ko lam sàcc su ko defee dagg gan dagg loxoom du tee buur topp ko mu fay waaja mu sàcc la nga xam ne moom la sàcc su dee yàqugu ko ñu jël ko delloo ko su dee sànq na ko ñu xool valeur ba ñu teg ko ko mu delloo ko comme sàcc mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam kon yaakaar naa man man su ma doyloo loolu yal na yàlla defal ñu tawfiq may ñu aafiya fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain